bu njëkk bi xew-xew bu tiis bi am euh, fële ca euh, Medina euh, Baye ak ñooñu fa agressé ba rey xale biñ naan Mohamed Abdou Aziz Cissé xale boo xam ne la bi mu fee ñëw sept mois la amoon ah toog na fa juróom-ñetti at di jàng alxuraan nii la mujjee sëñ Aliou Niass mi àdduna niki it sëñ Maaxi ñas mi nga xam ni moo yor kàddu Medina Baye Euh, ñu jël ko comme prétexte pour wax un peu ci ñaawteef boobu nga xam ni xew na foofu ca Kaolack Papis Diaw waaw c'est triste quoi vraiment douloureux triste bon y a rien amul commentaire quoi amul mot buy correspondre pour qualifier ce qui se passe c'est justement c'est simplement mm. atroce waaw ah, franchement alors Malal c'est de la barbarie war nañu taxaw bu baax a baax ci sécurité Kaolack parce que Carrefour la. Mhm. Kaolack euh, violence bëri na fa war nañ taxawaat bu baax a baax ci sécurité bi. waaw mhm. di di leen di ko jaale di jaale Kaolack parce que lii métti na trop. Mhm. maintenant am na ay rendez bu yoo xam ne waruñu ko raté. ah jaxumpa comme dala ci fekk. waaw daf ma fi fekk de. dama ni war nañoo xoolaat suñu bopp de. rey yi de bëri na trop te façon bi ñaaw na trop. am na lu ñu rax wala am na wala nit ñi saafaraat des na wala éducation bi des na wala mm-hmm. mais ñaaw na daal ñaaw na femme bi Kolda ñu ren bi kii ñu ñëw dugg ah. c'est-à-dire non trop c'est trop Pape Djibril sécurité bi lañu ñu interpellé bu baax et mm-hmm. puis sécurité oui mais sécurité de proximité aussi mm-hmm. encore plus et euh, ñoo ngi wax Kaolack grande agglomération la ñoo ngi wax Touba gis ngeen temps yi ba directeur police dafa obligé dem foofu pour nee na day recueillir Euh, sëriñ bi déglu moom rencontre bi am ak sëñ Bass Abdou Khadre pour ñu wax ko ne ko dëkk bi waratu leen ko continuer di ko la deuxième grande agglomération du Sénégal mënatoo leen continuer di ko considérer comme une petite commune mmh. yaa ngi dégg parce que démographie bi am na solo mmh. léegi pour man en terme de renseignement et tout mais soxla woo kilifa dëkk ba di la wax li fi xew mmh. loolu moo xew kaw Kaolack nii pour man aussi euh, aussi bien la police elle est interpellée aussi bien la sécurité ci registre yëpp dañ leen interpellé mais aussi la santé encore une fois. Mhm. parce que bi mu fa jógee hôpital la dem. il mhm. paraît qu'il s'est passé aussi des choses là ba ba mu ñàkk ba kanam. Mhm. donc encore le problème de l'accueil et ah, du traitement revient sur la table par rapport à la santé. booba li xew. waaw man man en fait lu tax mu mu gën ma metti sax mooy mooy symbole bi quoi. symbole bi parce que euh, dañu am fi benn réew bu tudd Sénégal. boo xam ne boo demee Tivaouane dem Touba dem Yoff wala nga dem Jàmmalaay nga dem Kaolack surtout foofu. nga xam ne bëri na ay nit ñoo xam ne dañuy jóge bitim réew. ñëw foofu te loolu li muy symboliser dafa rëy. Hmm. je pense que loolu gën a metti parce que symbole lañu ñu rey. lu symboliser xale boo xam ne peut-être que ay waajuram dafa dañu jóge woon fële. ñëw di nekk ci ci ci mbirum diine. Euh, damay damay ñaax rek parce que aussi euh, damay wax tout le temps. Euh, am na benn côté boo xam ne dañ dañ surtout war a sant yàlla. Hmm. parce que di nga def màggal tuubaa fekk 4 millions de personnes wala 5 millions de personnes dem nga dem euh, gàmmu bi dem foofu Kaolack fekk ay millions de nit ñu jóge fa dinañ jàpp benn waa ji doon tux yamba wala benn kii mais c'est très rare nga dégg nit jël na paaka wala pital dóor ni donc am na benn affaire boo xam ne c'est un acquis pour le Sénégal moo tax euh, événement yu douloureux yu mel ni bu amee dafay dafay def benn tache d'huile bu mag parce que quand même c'est très difficile mais symbole bi quoi moom ci gën a metti donc euh, Euh, j'espère que du am benn répercussion ci ñi nga xam ne dañuy bëgg ñëw ci suñu réew mi pour sàkku si diine pour gën a jege yàlla aussi li fekk la ci vraiment lu difficile. alors deuxième gis-gis bi euh, ñaar ñu ràññeeku dañ cee àddu muy euh, semaine bi Seydi Gassama ne war nañ xool naka la ñuy def ba légaliser yàmba maanaam daganal tux yàmba ci biir réew mi war nañ jéem a seet naka juge Téliko tontu na ko parce que juge Téliko ne bu dee ay réalité yu am feneen la sociologique euh, juge Téliko moo jiite UMS Union de magistrats mm. tontu na ko disant que bu mu jël masala goo xam xam ni fële la cosaanoo indi ko def ko ci suñuy réalité yoo xam ni bokkul donc loolu du lu ñu war a xalaat la sax dàq na xalaat bi mala loo xalaat ni war. Euh, mais pourquoi affaire yàmbaa nga bëgguma jot <laughs> moi je suis pas un fumeur de chambre. donc <laughs> muy commencé ci la stigmatisation. buum rek nga bàyyi xam ne je sais pas comment dire. avec un œil comme si j'étais comme si on a partagé. accusateur non mala le mais Malal si j'étais à sa place aussi ah. dama lay njëkk a interpellé xam nga lu tax ah. parce que daf la yitteel en fait ndax da wax souvent ne <laughs> da fekk <laughs> da benn cornette xam nga les longues détentions da nga fi kaas ba sonn moo loolu moo tax c'est voilà la question Malal <laughs> ah, Malal non Pape Djibril bu ma amoon gouvernement ministre diplomatie laa lay dégg macha allah mais c'est lui qui s'est auto stigmatisé malal. malal laa gis-gis bi mu la fi yow fausse la. loolu loolu dafa gaaw mais gis-gis bi mu la fi. mais du ma toog ay galañ la. <laughs> waaye man <laughs> malal. waaw non du ma toog katu galañ c'est quand même important de. waay waay ah, jamais jamais musuma. tu es clean nickel. Ah, ah, c'est-à-dire pour man <laughs> Souleymane Souleymane Téliko waroon na am benn réflexion en tant que. en tant que magistrat bu gën a xóot loolu ak bu gën a muus loolu parce que pour man dañu nekk ci ay société suñu société yi dañuy avancer et que tey li kii wax euh, euh, Seydi Gassama Seydi Gassama li mu wax xëy na c'est très prématuré mais buñ fay jëm duñu bett ah, ah, ah. parce que quand dañu nekk la question bi ñuy teg affaire criminalisation affaire affaire drogue on n'a pas fait la distinction entre yamba ci est une douce. ak ak les drogues dures. cocaïne parce que loi Latif bi effectivement bi mu koy def spécifié wuñu mm. et aujourd'hui loolu moo tax tey prison yi. Mm-hmm. fees dell dañ lay jàpp ak benn joint par exemple en France bu ñu la jàppee ngay tuux bon walla ñu fekk la nga yor benn buuka bon duñ la tëj. benn benn benn benn. corne ah. mooy buuka quoi. mooy buuka. <laughs> yaa ngi bëgg tax rek léegi xam affaire bi non mais moi je suis un ah, enfant de la rue. ok ok c'est un nouveau type de Sénégal. <laughs> neexul dimbali ah neexul dimbali de. le nouveau type complètement. Eh, grand neexul dimbali nag. non non non non yenn saa yi quand tu parles donc parfois nag dama lay ne malal. bu leen neexee ñu dem defi test de sang. non non non mais dafay recueillir ay témoignages tout le temps. parce que la voix traînante là. recueillir ay témoignages nag dama lem quoi. <laughs> Charles à toi ancien rastaman ancien rastaman dëgg laa mais ancien rastaman Charles. yeah rastaman legalize waaw yeah man je m'assume totalement. comme nga la la meilleure se trouve ici chez nous. kooku liggéey bu bëri la pour des trucs respiratoires je parle de d'économie pure et dure mm-hmm. de santé pure et dure liggéeyuñu si mais Charles ñi mu dof la moo ëpp de. kaay ma wax la beneen affaire tu penses que les gens n'ont jamais fumé du chanvre bien avant que le Sénégal ne soit indépendant et le chanvre sénégalais il faut arrêter. Mm. il faut <laughs> mm, arrêter ça. il faut arrêter ça dafa am boo xamante ne comme malalum ko wax nos prisons dafa fees dell ak ñoo xamante ne mais naa fii ñu fiy tux. ay boo leen xamoon ay boo leen xamoon te ngi liggéey tous les jours c'est pas des criminels sauf que criminels par rapport à une loi qui en fait bu ñu leen jàppee c'est des criminels mais sinon mais ñi ci dof bëri na Charles je le répète pour vous dire la vérité l'alcool est pire que le par rapport à mon éducation par rapport ak sama gëm-gëm mm-hmm. déjà bu ma déggee ñu ko sax damay tiit pour te dire la vérité c'est-à-dire man dama jékki-jékki débat yoo xam ne Sénégal léegi ay waxu góor jigéen waxu daganal lii waxu nangam je vous assure man jëm me ko que ñu ñun fan lañ jëm. man sincèrement. comprendre mais encore que l'herbe est naturelle hein. non d'accord mais c'est dans le sol. non man bugguma sax comprendre. <laughs> vraiment waaw. mais mais mais mais ñaari mbir. Euh, man man honnêtement man amuma ci état d'âme. ay ay yàmbaa moom. di ko jéem a banaliser sax naan lii yeeg lii yeeg yooyu taxawul. yàmbaa moom nañu nañu dimbali bëggunu yàmbaa si suñu réew mi par contre par exemple bu dee naan mala nga nekk takk yàmbaa bi mu tudd buuka buuka benn buuka waaw ku ñu jàpp ci benn buuka tëj la fële bàyyi la foofu jàpp am benn waa ju def crime bi gën a grave foofu muy taxaw ci biti loolu si autre chose mais je pense que euh, challenge bi nga xam ni euh, ku nekk Amnesty International ah ak ki nekk ci wàllum société civile ak wàllum droit de l'homme challenge yi ñu nekk seen kanam mooy que on est dans un monde en mutation mm-hmm. mbirum yàmba légalisation yàmba yeeg à la limite homosexualité légalisation c'est un challenge pour ñoom parce que c'est des c'est des non c'est des personnes qui travaillent quand ak ay nit yoo xam ne sur ils sont sur l'international et cette pression là elle vient d'ailleurs. feneen lay jógee. oui mais ça peut être une conviction waaw mais yéen da ngeen waaw boo paree. ma bàyyi ma wax li may wax. aujourd'hui ce qui se passe si beneen dëkk ba ñuy légaliser on est très très loin. de ça ah, man ba ba ñuy non non du prématuré. Mm. parce que pour man moo boobu ngeen trouvé prématuré moo gën a graaw. prématuré mooy ko jotagul. waaw waaw mais non du fi jot. man moo non ku nekk ak sa man la man la attends da wax aussi ñu déglu la man sama discours moom mooy du ma ne dafa prématuré parce que c'est à la limite banaliser la chose. yàmbaa moom man ci ab sénégalais buñ ci lu ñu bay yàgg. bokkul ci loo xam ne dañ ko war a fooyee mais non mais Charles j'ai le droit de dire ce que je pense la le Yamba est perte de vie en Casamance mais non mais je ne parle pas attends ce pays oh, il y a quelque temps les femmes fumaient des pipes dans waaw waaw mais non non mais on s'est retrouvé mais papis waxante dëgg ah boo ñëwee sax génn sax si rapport manding wala dara par exemple tout ce qui est fumé sur le plan de la santé déjà même sur le rapport santé tox baaxul c'est pas bon benn affaire mooy prématuré boobu c'est pourquoi mhm. en sachant que du fi ñëw man je suis contre totalement contre mais dans les pays où cela existe dafa am ay processus mhm. ils ont fait des expérimentations ils ont accompagné ils ont eu des ce n'importe quoi shooting si si non je parle de des li nga xam moom moo am. Mm. ay shooting yoo xamante dañuy accompagner ay narco ay trafiquants di xool dans quelle mesure ils peuvent équilibrer ay réinsertion ça c'est ailleurs. ils l'ont préparé ils ont eu des programmes de financement pour ça. Mm. mais pour fii. et surtout faire face à la drogue synthétique. je suis contre totalement contre. c'est grave. tox mu bon mi nee nañ ndax duñ ko man d'abord duñ ko ma suma position bu njëkk mooy jëfandikoo lu yàq sa xel baaxul. Mm. d'abord. c'est pas prouvé hein ça waaw la perception qu'on a mooy que ne souvent ñi koy utiliser. Euh, <laughs> Charles Charles défend ses amours. je <laughs> c'est pas par hasard que j'ai précisé Charles ancien rastaman. waaw li ma def et nouveau type de Sénégalais. <laughs> léegi Malal je n'ose yi nga xamante ni dañ ko fay utiliser yëpp dañ ko fa expérimenter. oui oui Pape ñu déglu Pape Djibril. Euh, réew yooyu aussi à un moment donné. dañu dem nekk devant le fait accompli. la réalité était telle que. Mm. il fallait prendre des mesures. mesure mais nañu légaliser surtout le marché noir bi développé wu à côté ñu ne nañ ko légaliser pour contrecarrer marché noir boobu et aujourd'hui réew yooyu li ñuy dépenser mm-hmm. c'est astronomique pour santé publique pour des questions de santé publique sur la même question bi nga xamante ne légaliser nañ ko ba pare ba nekk une réalité justement ay droits humains ak yooyu mais ci ginnaaw li ñuy li ñuy déjà on a un problème pour gérer Dalal Xel on a un problème pour gérer Fann on a un problème pour gérer les malades mentaux les Égyptiens la plus grande civilisation noire et les yii Charles Charles Charles Charles ça dimbali amalu na Pape Djibril yaa ko doon def mais neexul dimbali neexul dimbali neexul dimbali mais léegi dama bëgg a daaneel rek dama bëgg a daaneel. may ko mu daaneel je te mais mais je vous conseille. du thème mais dinaa la ko jox mais je vous le conseille c'est le profane qui parle. Mm. c'est le profane qui parle ah, ça se voit ça se voit. moo tax c'est le profane. <laughs> boole ci profane. ah waaw ñun ñëpp ay profane la. à part à part notre camp. la ligne la ligne dure. monsieur Diakhoumpa je suis désolé mais vous aujourd'hui tu te retrouves du mauvais côté monsieur Diakhoumpa. mais léegi léegi oui l'axe du mal. léegi de. dama bëgg a wax parce que l'un des rares consensus que nous avons oui. maintenant. Uh -huh. Je suis d'accord sur une chose. Oui. Mooy que